délégation yëpp gis nañ leen waaye nag dañu ñu jéggal rek ci lim bi ndax temps bi dafa xat sëñ bi sëñ ma xujja bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu di leen siyaar ah, di leen bal àq di leen bal àq ci coono yi dem bi ak ñëw bi fépp faay mën di jógee lu mu sori sori ak lu mu jege jege tànk yi mu doon demee ñëw ak dikk yàlla ko suñu borom beneen yiw yiw àdduna ak yiw àllaaxira bi jeexi rasul sallallahu alayhi wa sallam barke ah, kàddu yi nag xam naa duñu xaw a gudd noonu ndax lu day lu mënta ñàkk rek mboolem fi teewul ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Baye Dame Mariama ture nee na mi ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax a baax a baax eh, eh, ñi fi teew nag bari na lool lool ñu jóge Touba Kër Makhoudia yooyu yëpp benn dëkk bi la Kër Mademba Longor ak Bopp Sila ci la Dramane Medina san Yaane Kër Malick ci biir dëkk bi la bokk ak waa dëkk bi seen bokk parce que comme yoruma liste bu ma fàttee nañ ma jégal rek wolof dañ ne lim moom daanaka jarta dugg ndax boo duggee da ngay juum xol daal tudd na ñëpp kuñ tudd kuñ tuddut ah, liñ ci barkeeloo ci ay kàddu nag du gudd lu gudd lool mooy ñoo ngi dollee dénk suñ bopp di dénk ñi nga xam ne ñoo lañ jamonoonteel ragal yàlla ak topp yàlla ak sàmmonteeg suñ ngor ak fonk suñ cosaan ak dundalu lew jaamu yàlla sax ci bu ko defee yàlla suñu borom moo ñu dëgëralal boppam yàlla suñu borom boole dimbali ñaan yàlla defal na ko ah ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal ñi nga xam ne ñoo war a defar lépp luñ man ci def def boo koy def saa soo defee li nga defoon tey bu ëllëgee bu ko gisaat waaye bu fekkee da ngaa def ba pare li nga defoon daaw sax nga koy xalaat def bi du yomb day xaw a jafe ci yow lu baax bu la taxee jóg li ngay def defal rek ndax boo jàppee ne benn mbindeef moo la mën a fay dootoo ko def wala da ko da ko wala boo koy def da ko mas a bàyyi ndax mbindeef mënut a fay yàlla mooy fay te yàlla fa muy fay fay ga du doy te comme fay da nga xam ne fay na la kon lu ñu fa yóbbu rek épargne ko fa na nga xam ne loolu denc la boo xam ne du yàqu ñoo ngi encouragé ñëpp daal ci ne lii. dafa nur lu yomb waaye lu xaw a jafe la ndax li koy def lépp mooy euh, euh, temps da koy def muy joxe sa temps ba mat sa kàttan li nga ci man sa doole da nga ko ciy def sa alal itam li nga ci man da ko ciy def yett yooyu nag ku bëgg di def yu mel nii te doo ko ci boole na la leer na moom def ki day sot day day des fekkee da bëgg di def te sa temps doo ko def sa alal doo ko def sa doole doo ko def sa xalaat même boo amatul doole amoo temps amoo doole sax war nga mën am xalaat ñu mën cee sukkandiku ñeent yooyu ñoom mënees koo bokk ñàkk ku ko ñàkk moom dafa ma mel ni kon eh, dafa am luy xaw a des waaw ah, ah xàqlu illas naa ni sëñ ma dikke xàqlu nga mantuxun ah waaw yooyu koo ñàkk rek dafa mel ni kon lépp day daal ci xaw a manqué kon il faut nit ki ña yooyu ñeent yooyu ma lim il faut nit ki am ci dara am gi dara nag ba pare moom yàlla xëñu ko kenn yàlla xëñu ko kenn li ci des li ci des kay mooy mooy nangu koo dépassé walla nga ñàkk koo nangoo dépassé waaye nag yaakaar naa dépassé gi day loo xam ne am solo la yàlla na yàlla dimbali ba nga xam ne lu ñuy mage mage ak lu ñuy ndawe ndawe lépp lu ñuy def ci lu baax ku ku buñ buñ ne ku yëg kanam itam ku ñëw rek dang ñoo dang ñoo fekk ñu ne léegi ca biir yàlla ci yàlla boole dimbali. Ah, am na fi ñoo xam tam du ma seen tur bu baax danaa ko junj tuuti waaye taxawaay rafet na lool ñoo ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne dese nañoo taxaw itam xam nañ ne dese nañoo taxaw nañ xam ne ku ci ne xamal nga sa bopp ne fi nga toll xam nga ko. Eh, na nga na nga càmbaral sa bopp bu baax a baax a baax a baax a baax ah gone ndaw itam eh, dama tardé conférence bi tuuti ba am lu ma ci dóor ndax am lu dama nekk ay yitte am lu ma ci dóor dégg sëñ Abdou Hakim di ko wax mooy yu baree bare bari da leen di sànq doon nañ ko fi junj daaw mooy réseaux sociaux yi ak yu mel noonu ah, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waxoon naa ko daaw dinaa ko waxal ren itam mag ñi nañ ciy dugg di ci di ci di ci di ci di ci dajeeg gone yi parce que bu nekk sa sa doom bu nekkee Facebook nga nekk Facebook mun la faa réer bu nekkee WhatsApp nga nekk fa mun la faa gisante soo gisee loo xam ne nii ah euh, war nañ koo soppi nga ne ko soppil mu soppi waaye fekkee yow da toog rek doo fa dugg léegi mu fay dugg kenn dafay dugg ak moroomam léegi la muy def lépp doo ci xam dara parce que àdduna tam dafay dox. comme ni ni nga xam ne nii tey lappe gi boo ñëwee tey nii mu demee nii li ku ne xam ne muy oto yeeg nangam nangam ak avion nangam daawut indi nit ñi bu bu njëkk la leen daan indi ak la leen indi loolu comme ni muy évoluer nag xel yi ak xalaat yi noonu lay évoluer maanaam yarum njaboot gi tam noonu lay évoluer du caagin da nga doom ji da koy jàpp rek jàng ko alxuraan mokkal jàng ko xam-xam nangam nangam. fe doo ko contrôler te contrôle bi léegi mënoo muus ba nga xam ne comme da ngay tëj sa sa buntu tëj sa tëj sa frontière maanaam fay say lamp léegi maanaam Facebook bëtt ko dugg ci biir WhatsApp bëtt ko dugg ci biir te mënoo koo faj bu boobaa yow bu fekkee nekk nga benn gardien boo xam ne dangay leen di xool léegi bu duggee yow da xam ne dugg na bu génnee tam da nga xam ne génn na yooyu yëpp dafa jar di xalaat waaw suñ mbokk jigéen ñi tam ñoo ngi leen di encouragé xaw ma ñëwagul na ñoom déet nañu gën a góor góorgóorlu baax a baax a baax a baax góorgóorlu bu baax parce que itam euh, yëngu yi daal man ni ma ko gisee nii dafa mel ni euh, dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a bari waaye njariñ li dafa xaw a néew tuuti bari na mais njariñ li xaw laa néew tuuti ndax daanaka yëngu yi li ci ëpp ci yarub gone yi dafa mel ni góor ñi ñoom ñoo ci ëpp luñ ciy def waaye jigéen ñi itam ñu ëpp luñ ciy yàq mën naa ne kon bu fekkee ne góor ñi defar nañ 60 pour cent jigéen ñi daanaka dañuy yàq 30 wala 40 pour cent kon loolu dana xaw a doy waar trop lu lu xaw lu xaw a metti la euh, ndax euh, waaw waaw sëñ Mor waaw gërëm mbooloo mépp ah, di leen xamal ne wax yi nag xam naa xaw naa tax suuf waaye ñoo ngi ciy jégalu ñëpp coono yi ñoo ñu xaw a jàpp depuis dem ba léegi ñoo ngi kër kër yi yal na yàlla defal dégg topp defal topp ak saa yor ak bàttin wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ma Khoudia wax ji am na solo lool ndax dama koy wax toujours ku dangaa da ngaa dof ku rek fu mu doon da ngaa dof ndax sa doom day nekk ci biir néeg bi di wax ak waa wala waa Amérique wala waa te mu ci biir néeg bi. loolu nag daa mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax. loolu. loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax gannaaw bu loolu wéyee nag dafa am ay xale yoo xam ne fokk ñu sant leen muy ànd defar lappe wax dëgg nag ñoom ay jàmbaar lañu. ndax ñoom ñoo fay kaar yi téeméer lañ def fii ba Lappe fii ba Touba aller retour téeméer loolu nag ndimbal lu réeréer la ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm seen pas-pas it nit ñi xam nañ ko ndax amoon nañu pas-pas pour defar mbaar mi fii waaye mbaar mi ñun ñëpp ko bokk ñoo ko ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko bokk bëgg a defar. am na ñu am projet boo xamante ne nii projet mbaar lañ bëgg a def fii ci digg pénc mi defar defar nañu étude bi ba pare mbaar mi 4 millions moo ko war defar 4 millions nag dañu bëgg. ñu commencé ko ren sa def ko ay sas sas yi li ci gën a ndaw mooy cent mille francs am na ci ñeent nit nag ñoo xam moom sas nañ leen sas wala leen sas bu ma paree ko wax am na ñeent ñoo xam tànn leen ñoom duñ leen sas cent mille lañ sas maa xaalim daañu ko waxtaan sas leen ko bu la lowee ñëpp képp ku ci man dara du cent mille yi ñu mooy cent mille ku man cinquante mille baax na na ci moom cent mille lañ leen des am na ñu leen sas ñeent ñooñu moom li leen sas daañ leen ko wax bu loolu wéyee am na ñeneen muy sëti sët ñi nga xam ñun ñooy seen nijaay ñun ñii ñooy seen nijaay am na xam ne ñun ñun ñoom ñooy seen nijaay ñooñu nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñëw nañu fi tey indi fi fan fanweeri junni ak ñeenti téeméer ñu ngi leen sant di leen di leen gërëm muy Abdoulahat Dieng ak ñi mu àndal Abdoulahat Dieng ak ñoom ndey Touré Maguette Dieng ak classe googu ñoo dajale ba mat fanweeri junni ak ñeent fanweeri junni ak ñeenti téeméer indi nañ ko ba jox naa ko trésorier bi gannaaw bu loolu wéyee nag ñu ngi sant bu baax a baax a baax ñi nekk Ndakaaru ak ñi nekk Touba ndax yëf yi niñ yaakaare ni la yomb yombawut noonu maanaam at lañ ciy liggéey at weeru deewu na daan daj daan daje ci kër kenn wàcc fa wàcc fa kaamil jàng wàcc fa kaamil def fay ñaan du joxe suñuy teg ba ba at mi jeex ba at mi jeexee ñu jëlaat ca ñooñee lu mat fukki nit na leen ku ne da joxe fukki junni am na ñoo xamante ni joxe nañ seen douze mille ba joxe fukki junni daa xam naa jamono daa samp jaxate ndax daañu am fukki nit ñoo xam ne daañu joxe fukki junni waaye ren juróom benn nit ñu joxe fukki junni lañu am waaye ñi ngi ñaan bu déwénee ñu bëree bëri man ko ñi ñaan bu déwénee ñu bëri mbaar mi daal mooy objectif numéro un bi gannaaw nag ñu jox sañ Ahmad Touré mu mu kii bu paree ñu jox sëñ Alaaji Touré mi nga xamante nii mooy wax ci turu ànd defar lappe ñoom ñi nga xam ñoo fay kaari sëñ Ahmad bismillah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyób lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah di leen nuyu ci bërëb bu tedd bi di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi ak jëf yu tedd yi di nuyu mbooleem kilifa yi fi daje yépp ci wàllu ndaw ñi ak ci mag ñi ak ci jigéen ñi ak ci góor ñi di nuyu bu baax suñu mbokk sëriñ Abdul Hakim Sylla ci li nga xam ne jot na fee jàll muy lu am solo lool lu am solo te fasu te tënku yàlla nañu ko yàlla fayal muy thème bi jot li léegi te mooy wane ne diine mooy rafetu jëflante diine ñaari xaaj la benn bi ibaadaat la diggante nit ki la ak benn bi nit diggante nit ak moromam muy jaamu yàlla ak jëflante mu mel ni nag benn bi moo gën a diis ndax benn bi ngay séq yàlla sa boroom la cay rëq-rëq yàlla baale ko bu ko neexee du dara waaye benn ba ci des nag muy la nga xam ne looy siq la ak sab nawle loola loo ca mankil àq lay doon ala kulli halin astaghfirullah mënu ko faas mënu ko effacer nga man ko fay nga fay ko mënoo ko fay ñu jël saw yiw jox ko amoo yiw ñu jël ay bon borom teg ci sa kaw waaye faw des koy matal loola nag rafetuk jëflanti nag ci diggante nit ak moroom ma amut lu ci gën a rafet matal kóllëre matal kóllëre googu nag mën nañ mooy cosaanal jikko ju rafet moo tax yonent bi daan wax ne laa imaana liman laa amaanata la wala diina liman laa ahda la képp kuy woote ngëm yàlla te amul kóoluteef ne leen ko sa ngëm wérut képp kuy woote diine te amul wëllëre ne leen ko sa diine wérut te moo diine kon kóllëre day lu am solo rawatina diggante nit ki ak boromam li ko ci war mu xam ne siñeente woon na ko boromam ba keroog yàlla naa alastu bi rabbikum ca njëlbeenu aaya ja yàlla seeraloo leen seen bopp leen ndax duma seen borom ndax am ngeen benn borom ba ngeen di jaam bur man ñoom ñëpp ñu nangu na yow yàlla yaay suñu borom siñeenteeg moom kóllëre waskuroo ni'matullahi wa miisaaxakum allazi waasaxakum bi isqultum samina wa atana bis bu set yàlla di ko fàttali jaam ñi di yebal ay yonent di yebal ay nit ñu baax ngir ñëw ñu leen di fàttali ne leen lii ngeen siñeente woon seen digg seen borom. kóllëre googu nag bokk na ci li muamala bi nga xam ne moo dox diggante nit ak morom diggante ak mbokkam di sëñ Abdou Hakim léegi tudd ko ci aaya yi mu waxoon ne wa wattaqullaha allazi tasaaluuna bihi wal arhama inna allaha kaana aleykum raqiba ragal leen yàlla waaye watt na ngeen sàmm bokk gi tam tudd ko léegi kon sàmm bokk googee bokk na ci wëllëre wëllëre yi nga xam ne war nañ cee bàyyi xel bu baax ci di ko sàmm wëllëre googu nag ci jamono ji ñu toll dañuy gis ne fecc wëllëre ak ñàkk ko dafa bari lool ci jamono rawatina nag fi mu gën a baree mooy ci sommet bi ci kaw moo xam ci ñi jiite diine moo xam ci ñi jiite àdduna bu dee ci ñi jiite diine mooy ay ni topp la yaakaar la nga jënd seen doole ak àdduna bu dee ci wàllu politique gis nañ ñii ñi nga xam ne ñoo tàllal seen loxo na ñoom ñoo bëgg a yor réew mi ñoom ñoo fas yéene jubbanti réew mi ëllëg te loolu yar bi nekk ci loolu gis nañu ñoom fekkiwul ne dafa bari ci nekk sa démb moo doon sa noonu tey sa noonu tey mooy sa xaritub démb ba noppi nga yaakaar ne yow ëllëg yaay yow lañuy ñuy yaakaar ci yow la yaakaar nga defare te amuñu benn wëllëre amuñu benn kóllëre bu ñuy sàmm kon boog sàmm kóllëre nag bokk na ca lii ngeen def tey moo di daje seet maam yi liñ fi jëmbatoon ci lislaam ak jikko ju rafet ak jom ñu dem fañ ko jëmbatoon dundal ko dundalaale jikko ya wax naa ko fii daaw jëkk sëñ Sidi Moxtaar bi ñu wax dañ dellu ci eh, dëkk yi dundal ko tam waxuñu ñëw rek tabaxaat tabax fi jàkk mba def fi mbaar mu rafet loolu baax na waaye lañ ca jublu la ca ginnaaw loola mooy dellu ca jikko ya jikko lislaam yi maam yoroon boo delloo ci dëkk ba it na nga delloowaale ca jikko ya bés boo dellu see lépp te delloo ca jikko yi lislaam ji it sa dellu si amul njariñ man ngaa toog fa nga jóge woon kon dellu gi li muy tam mooy nañu dellu ci démb ci lislaam ju wir ak ngor ak jom ak sàmm ko lëre sëriñ maxtar penda jeng sëñ Tuubaa bi mu nekkee jolof da ko woo benn bis mu ne ko buñ jullee gee ba noppi na nga woo mbooloo mépp nañu daje ne bañ jullee gee ba noppi sëñ Maxtaar sëriñ bi ne tëll daal di laaj ndax fere yi ñëpp ñëw nañu sëñ Maxtaar ne ko ñi ëpp teew nañ mu ne dama leen bëgg a waxtaan a yéen waxtaan woo xam ne damaa bëgg ngeen déglu ko te sàmm ko ndax damay bëgg a dellu réew ma boobu mi ngi waaj jëm njaarim daal di ne leen juróom benn yëf ngi nii ku ko bëgg dëgg def juróom benn ku bëgg jege yàlla del jàng alxuraan ku bëgg a mucc ci mbugalum bàmmeel del bari looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg am ba ne giijal te doo soxlaal kenn dara lool loola yàlla jox na ko delloo sa borom mi loo ko joxoon daldi na leen ku bëgg a mucc bul tooñ ndax kuy tooñ du mucc te kenn mënu laa tax a mucc kenn mënu laa dimbali ba nga mucc ku bëgg a noppalu bul fayu kuy fayu du noppalu te kenn mënu koo tax a noppalu yooyu mu wax yëpp di luy dundal ak bokk daal di ku bëgg aw ku bëgg ay àndandoo nag da aw ci yoon ku bëgg àndandoo da aw ci yoon soo awee ci yoon di nga dabe mbaa ñu dab la daal di yaara fi nekk yoon wi ak ñal yi ñall wi loolu da moo ma gën a intéressé ci yoon wi ak ñall wi daal di ñall woowu nga xam ne nag ñëpp ci nit ñi ci lañ jaar laa leen bëgg a wax ku ca jaar famille mu jéeg moom daal ne jaar ci ñal wi di nga doxa doxa dox ba sonn te doo gisub dëkk mbaa nga dox ba ab dëkk lu yàgg te doo ko xam jaar ci ñal tax moo la ko teg daal ne boo jaaree ci ñal wi itam doo for dara loo réer la itam loo waddale kenn du ko for ba di la ko jox loolu nag kon li muy tegtale ci wax yii may bëgg a wax wax yii muy wax sëñ Tuubaa jaar gi ngeen jaar ci yoon wi mu yoon woo xam ne yoonu lislaam la di ay ndaw loolu da ci bàyyi xel bu baax dal li sëñ bi wax na ko léegi ci njëlbeenam sëñ ab sëñ Hakim diine ji julli ak woor ak asaka mooy fondation bi mais loolu doo nga du diine buñ demee ci alquran dangay gis lu baree baree baree bari la muy jàppe diine ak lu baax luy tax mucc tey ëllëg da gis ne da koy delloo ci al muamalatul mooy jikko ji mooy jëfantu bu rafet sëñ Tuubaa mas nay firil taalibe yi lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen mën a am mukk aw yiw wala bokk yàlla du leen mën a nangul mukk ndare ba dangeen a làmbu seen poos joxe ko ci yoon yàlla joxe ko ci yoon yàlla woowu nag bokk na ci dimbale sa mbokk waaye ba ko sëñ Tuubaa di firi dafa leen mënu leen a aja aja aja aj mënu leen a woor a woor woor mënu leen a jullee jullee jullee julli ba yàlla nangul leen te lambu seen pos du def ci yoonu yàlla wax na fi léegi aay innamal mu'minuuna ixwa jullit julli ba jullit ay mbokkam mbokk mel ne mbokk rek moom mooy mbokkum jullit ndax mbokkum lu tax loolu ñu koy indi mooy xasara la sëñ Abdou Akim xam na lan mooy loolu léegi euh, ki nga bokkal ngeen bokkal ndey ak baay sax bis bu ngeen xëyee seen pas-pas wuute islam ne dootu leen doon nante te ki nga bokkal pas-pas yàgg yàgg moom boo fi desee doon la waaye ci benn aaya dafa wax ne innamal mu'minuuna allaziina aamanu billahi wa rasulihi summa lam yartaabu wa jaahadu bi am amwaalihim wa anfusihim ulaa'ika humu saadiquun jullit yi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëmu yenenteem te sikki sàkk waaye yëmu ci de waaye dañuy jihaat ci li leen yàlla jox ngi di ko joxe kon loolu buntu dimbali la jaamu yàlla ci jaami yàlla yi dafa am solo te nga tàmbali ko ci say bokk loolu kon sëriñ Abdou Hakim wax ji mu wax ci loolu am solo la wax na fi léegi itam ci taxawaayu sëñ tubaa nga xam ne ni mu mën a rafetante aw jëflantil bi mu nekkee Gabon wa Bachir la wax wa Bachir sawil islaam yi turan bi awbati su ma ñibbee sëriñ bi may indi njariñ yi na nga ko bégale lislaam bépp lu mu wax wala tuaadoo man raaytum faahu yuxruju laa ilaha illa allah képp kuy wax laa ilaha illa allah bu leen ko noonu seen bokk la kon moom rafetal foofu ci moom la yemal la ci des li mu mujjee ci foofu lay tëjee muy whatsapp bi ak réseaux sociaux yi nañ ci def attention bu baax wax na li muy jël ci temps waaye li muy jël jël ci temps dafa am danse yu ci nekkaat yu bëri alquran dafay wax ne inna alladina yuhibbuuna an tashiiha alfaxisatu fi allazina amanu lahum asaabun alimun fi dunya wal axira ñi nga xam ne dara du lu may partagé lu ñaaw saa yu ñu gisee bu ñaaw rek mbaa audio dal am seen xel dal dañ koo partagé yàlla nee na ñooñu nañu xam ne mbugal mi ngi leen di xaar ci adduna ak alaxira mbugalum adduna mi adduna mi mooy li nga yor yàqu sëriñ Touba ci Fathul naan fi Jaabi Abdourahman ba ñuy wax sëñ ab ba ñuy dénk sëñ Abdourahman loolu da koo dénk da koo fàttali waxi benn borom xam-xam ne isaa raayta wahnan fii diinika aw naqsan fii risqika lan bi annaka takallamta bi maa laa ya'nika sa yoo demee ba gis ne sa diine ni nga ko war a jàppee sa taalibe des na xamal na wala boog sa magasin bi mbaa sa liggéey bii doxatul Sëñ Tuubaa ñu kon dellul seet sa bopp xam ne wax nga loo xam ne wu yoon nekku ci te li ëpp ci li ñuy partagé ci Facebook bi ifk la ifk mooy duur te alxuraan la fa am lu ñu lu ñu jàngaloon wala si ne jaa'uuka bil ifki xusbatun minkum laa laa taxsibuhu sarrun lakum bal huwa xayrun lakum li ngeen di indil ay groupe la ci yéen ñoo koy def effectivement ay groupe ñoo koy def bañ ko sal ay groupe la ñuy tuddee groupe sàngam groupe sàngam de partagé te mbir yoo xam ne léeg-léeg dara du leen ci leer ku ko partagé am nga bakkaar waaye nag wala si tawala kibroo nag lu ansaabun aziim ki ci gën a yor jongante bi nag mooy ka ko njëkk a filmé ko kooku mooy mooy ëllëg si tawala kibra ab julit lan la war a doon def lawlaa istamitumoo sànnal muminina wala muminaat bi am fu si ma xëyra lu tey di ko déggee mbaa nga gis ko nga jox sa sa mbokkum julit lu rafet te bañ dem di ko partagé wala boog lawlaa istami'tumuhu qultum maa yakunu lanaa an natakallama bi haasa wala boog bi ñu ko déggee mbaa nga gis ko ne non man lii du ma ci par du ma ci no ko du ma ci commentaire du ko wax du ma ko gis loolu mooy taxawaayu jullit ci réseaux sociaux yi wax nga ci beneen point ci biir yi mooy réseaux sociaux mënul taxaw taxawaayu doxuk mbokk doxuk mbokk bëgg la mën na jokkaloo di kii waaye du tee nag nga di ko seeti léegi bu ñu bëggee doyloo réseaux sociaux yi ba kenn seeti kenn musiba la musiba la loolu itam feetal bi nga doon wax léegi ci seytaane ci la bokk kon loolu lu am solo la kon mbokk yi ak waxtu wu xat wi kon lii lañ doon def ci lu gàtt ci taarix ci lii nga xam ne Cheikh Abdoul Hakim indi na ko muy wax ju am solo ju jar a diglu ju ju ju ju matale lool lool lool lool lool ndax jullit ni ko sëriñ bi doon waxee léegi ni ko sëriñ bi doon waxee léegi daf ñu waxoon ne ruhamaa baynahum la leen la leen yàlla tagge ruhamaa baynahum ay jul saxaaba yi doon leen alxuraan tagge muhammadu rasulullah wala sinamaaw ashidda wa al kufar waaye ruhamaa baynahum dañoo yërëmante seen biir yërëmante googu du ay ndeysaan du yooyu weesu na ko tariqatul adabi rahmatu saqir kal abbi wa ummi wa tawxir kabir donc suñu tawaxee ci nawju yërëm ko mooy lan yërëmante gi mooy lan képp koo xam ne gis nga sa mbokk mu nekk ci yoon woo xam ne bu ca jaaree addunaam yàqu alaxiraam yàqu rikkuwaay bu bu leen tax ngeen seppi ko ci seen biir keroog la leen gën a soxla mooy yad'u saalihahum li taalihihim wa taalihahum li saalihihim koo xam ne gis nga sa mbokk mu summ lu rafet mu leer na lii lu baax la bokk na ci la ibnu abbas feeñoo la mooy an yu'ina muhsinahum ku ci sumb lu baax di ci def lu baax nda ko ñëpp ñam jàppale ji xam ne diw ko li mu sumb lu baax la def ju baax la te bu kenn gor ay tànkam bu réussite bi amee réussite bi ñëpp koy bokk moytu lépp luy ju juge luy lor di jóge ci yow jëm ci moom mbokk gi lislaam da koo fonk ba soo gisee jëw bi ngeen wax léegi ci li ci ci fonk mbokk yi fi ne jëw tudd nga ko sànq yaakaar naa loolu day indi day day tey indi ñàkk confiance jëw day indi ci société ñàkk confiance bu ngeen dee commencé jëwante rek confiance daal na fay su confiance amatul jëflante gu baax du am boobaa dimbalante du am boobaa sensu mbokk dafay jeex moo tax muy bañ rambaaj bañ jëw lépp yooyu yëpp yuy tax confiance ci diggante nit ki ak moromam te wëllëre kóllëre sàmm kóllëre di ko di ko sos di ko di ko di ko dëgëral yëpp soo gisee mu di ko bañ ngir bëgg rek diggante yi gën a dëgër kon mbokk yi nañu bàyyi xel kon ci loolu bu baax waxtu dafa guddi te sëriñ Abdou Akim li mu fi wax mat na sëkk doy sëkk nañ ci jàpp bu baax te diglu ko te bay yem ci diglu rek waaye dégg ko ak suñuy xol te suñ demee jim ko jëfe